أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

ok kon mbokk yi ginnaaw euh, noddu googu nag tey jii nga xamante ni nag euh, ci lañuy ubbi jumaa ji nga xamante ni moom moo nekk fii ci euh, Poroxaan muy nag date boo xamante ni bu historique la di benn fan ci at mu njëkk mi nga xamante ni moom mooy atum jullit yi ci atum 1442 yamook bisub àjjuma di ñaar fukki ak benn ci li nga xamante ni moom mooy. août ci deux mille euh, deux mille vingt kon nag euh, bis boobu nag ci la ñuy tàmbali mu mel ni ki rek xam naa ni ñu ngi tàmbali li nga xamante ni moom mooy euh, bayaan bi dañuy daal di dem rek ci biir li nga xamante ni moom mooy jumaa ji ñu teewlu waxtaan wi. fàttali yéen a ngi suivre de façon synchronisée mboolem média yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci yoonu murid tey ji ñu lëkkaloo di wane li nga xamante ni moom mooy ubbi teg uh, juma ju uh, Poroxaan di liggéey boo am solo boo xamante ni Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ko tàmbali ci atum 2009 ba tey ji nag mu àgg mu teew ci boppam fas yéene ko yi tamit uh, inauguré muy nag liggéey boo xamante ni liggéeyub yàlla la liggéeyub lislaam la liggéey bu am solo la kon nag ñu daal dem rek ndokkeel bokki jullit yi fi daje yépp ci xew-xewul islaam bu màgg bi dajale nu fi nun ñi tey nun ñëpp nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel bi ñu di ji jiital suñu sang bu tedd bii di Cheikh Mouhamadul Muntaqa toqa ñu ko siyaaree ndokkeel ko ndokkeel nañ njabootu xaadimu rasul gi fi nekk yépp ñu ngi rafetlu bu baax liggéey bu sell bii nga xamal ne amalal na ko sëriñ Touba ci toolub lislaam di ñaan borom bi tabaraka mu nangul ko te nangul ñu liggéey la boo xam ne bii liggéey bu am solo la ci lislaam ndax julli ci lislaam dafa am wàccuwaay boo xam ne geneen jaamu gudul moom amu ko jullik mbooloo itam doon sunna su dëgër tabax jumaa itam ngëneel lu rëy nekk ci bu ngeen bàyyiwaatee xel waxi yonante bi sallallahu alayhi wa man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallaahi banallaahu lahu baytan fil janna loolu yàlla na ci sëriñ yàlla tàbbal suñu sang bu tedd bii te tàbbal ci képp koo xam ne àndoon nag moom ci liggéey bi le ñi ngi koy rafetlu bu baax di ànd ñun ñëpp war a fàttaliku rek li nga xam ne moo fi andi woon soxna su tedd sii te mooy ni ko sëriñ bi faral di waxe rek kaweel baatu suñu borom bi nga xam ne moo baat yépp moom la fi àndoon ak sangam bu tedd ba ko yàlla boole loon di sëriñ Mbàkke Mor ñu ñëwoon fii wuyu si woon woote jàmbaari lislaam ja jihaatkat bu mag ba muy al imam maba radiallahu anhu waaye bi ñu ñëwee nag ñoom seen pas-pas ak seen yéene ju sell ak li leen taxoon a jóg jóg doonoon dëgg ci ñoom moo tax tey ginnaaw bi ñu demee téeméeri at ak juróom benn fukk yu manqué ay weer ci ati lislaam bi soxna jaaree wone wane gannaaw ak loolu yàlla di gën a wanewaat ay jeexitam di gën a gën a feeñalaat mbiram ginnaaw téeméeri at ak juróom benn fukk yu manqué ay weer ku ci yàlla mën a baaxe kenn fàttewu la balay defalati lu toll nii war nañ cee jàng ne liggéeyal yàlla rek mooy li am solo kon jullit bi fu mu nekk na fàggu ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala loolu rek mooy li am solo ngërëmul yàlla lu wér li sëriñ bi waxoon rek ba muy liggéeyal yàlla ak bi dale na naxu naxu leen woon waru leen woon moo tax yàlla ak yonent bi biñ koy fay fay gi lu ñu gën a jëm kanam rek ñu gën cee teg bët kon nag loolu nañu ko bàyyi xel bu baax a baax gën a santaat itam Cheikh Mouhamadul ngir mbir yu baree baree baree bari yoo xam ne war nañ ko cee dool delloo njukkal nun murid yi ngir ni munu def ni mu benn ma tudd ci ñaar rek ngir ni defal barab bii nun murid yi loolu amel nañ ko ci ay njukkal ak i cant yoo xam ne yàlla rek ko xam waaye ñaareel bi itam fàggu gim nu fàggul ci sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Muntaqa muy jàmbari lislaam ji nga xam ne yéeneem ju sell ak cofeelam ci sëriñ Touba mënee su koo takk mënee su koo natt mënee su koo lim kon nag Cheikh Mouhamadul Bachir moom nga xam ne moonu fàggu lool ci sëriñ bi yàlla nañu ko yàlla fayal te fayal nu ñi mu bokkal sëriñ Touba ñëpp ndax liggéey bi ñoom ñëpp la ko fi defal waaye ñu bàyyi xel ne itam sëriñ bi bu fi defee barab bi dafa bëgg itam ñu bàyyi ci xel bu baax di fi ñëw di ko dundal ngir mën a jariñu ci la yonent bi waxoon ne ida raaytum rajula yaataadu al masjid fashadu lahu bi iman ku ngeen gis rek mu baaxoo jàkka di fa dem wala mu di fa nekk di dem ak dikk na ngeen ko seereel ak ngëm te loolu mooy li yàlla waxoon rek ci alquranul karim innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmil axir kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kenn ku nekk xam ne itam saa yoo laabee sa kër ci ni ko yonent bi waxe dox dem ci benn néeg ci néegi yàlla yi ngir jooxe fa faratay julli ci faratay suñ farata yàlla yi jéego boo jéggi rek suñ boroom sippil la ca bàkkaar nga jéggi beneen jéego suñ boroom yëkkatil la ca daraja loolu war naa tax war na noo xemmem loonu ñëpp jàkka ji doon suñu barab yàlla baaxee nu itam ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy dundal ba tey yonent bi waxoon na ne itam ku xëy kuy dem jàkk ak a ñëw yàlla dana la waajalal na mu doon sa wàccukaay saaboo demee ñëw kon nag loolu yàlla na ko yàlla defal nun ñëpp te defal ko sëriñ bi ndax jàkkakat ni ko yonent bi waxe woon ba tey mooy néegu képp ku ragal yàlla te képp koo xam ne kii jàkka mooy sa néeg borom bi tabaraka wa dana la warlu jàmm war warlul la ab noflaay warlul la yërmande warlul la itam nga jéggi siraat dem ci ngërëmul borom bi tabaraka wa taala te mooy aljanna yàlla ko yàlla defal sëriñ bi te defal nu ko noonu ñépp kon daal julli gi nañ xam ne jaamu yàlla gu màgg la goo xam ne bu ñu nekkee ci ak teew wala ñu nekk ci ab tukki wala wala ñu nekk ci kóolute wala ñu nekk ci ragal ak ragal lum ci mën doon rek dañoo war a sàmmonteeg moom ndax yonent bi nee na mooy awwalu yu yuxaasab alayhi al abdu yowma alqiyaama moom lañuy ñuy njëkk rek la ci jaam bi ëllëg bis penc su baaxee rek jëfam yépp baax waaye bu baaxul itam mbir yi day xaw day doy waar kon nag yàlla nu yàlla baaxalal te nangul sëriñ bi te nangul nu ay kàddu yu gàttul rek yu ma doon tënk ngir feeñal suñu mbégte ci liggéey bu rëy bi nga xam ne sëriñ bi liggéeyal liggéeyal na ko liggéeyal liggéeyal na ko lislaam di ñaan yàlla itam yàlla tàbbal ko ci liggéey ba sëriñ Touba liggéeyaloon lislaam ca tuuba ba waxoon ca waxam juree ja ne wax fir liman banaw binaa ar rafian wax fir amarahum bihi jamii wa li jamii man aanahum ala binaiha alladi bi fadlika bi fadlika atala liggéeyub sëriñ bi yàlla na ko ci yàlla tàbbal ci barkeb sëriñ Tuubaa ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah waaw kay euh, jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi kon nag euh, gis ngeen ñu ngi ba tey rek ci li nga xamante ni moom mooy euh, inauguration bii nga xamante ni moom mooy juma bu Poroxaan kilifa yi nag ñoom ñëpp teew si nañ dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni léegi Serigne Cheikh Bousso yëkkati na ko kon nag ba tey rek xam naa ni dañuy xaarandi ñi nga xamante ni rek moom mooy waxtu wi jot. su ko defee ñu daal nag joxe waxtu wi nga xamante ni mooy waxtu jumaa ji bu njëkk dafa mel ni ki sax euh, imaam euh, mel na excellence sëñ sëñ Fallou bu sëñ Abdou Khadre mel na moom mooy imaam bi mu ngi noonu kon installé wu na kon nag du def lu dul rek euh, daal di demaat ànd ak waa régie dem ci biir jumaa ji fekk ji Serigne Fallou Mbacké moom Cheikh Abdou Khadre nga xamante ni mooy fas yéene doon suñu imaam tey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

le alhamdulilah almun'im almunfarid bilijad almumid li ahli aliman biimanihim aya imdad وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعده من أهل التوفيق أما بعد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 دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات maqaamu rasi fi aadaai zaat fa farrigu laha alquluba mahalla nadari rab wa tahhiru laha thiyaaba wal ajsaada tafuuzu bilqabuli walqurb inna salaata tanha an ilfahshaai walmunkar wala dikru llahi akbar wa fi lxadis buniya alislaamu ala xams shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami alsalaa wa itaai zaka wa xajji lbayt wa sawmi ramadan rawahu albuxaariyu wa muslim yaxfiru llah yaxfiru allahu lii wa lakum wa li jamii almuslimin amin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 alladina badalu liddiini xaqahu bila matli maatil amma baad fa inna xayra alxadiisi kitaabullah wa xayru lhadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa charru lumuuri muhdasaatuha wa kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar واعلموا يا عباد الله أن خير ما اتخذتم وصلة لربكم ورضائه توحيده وإدامة شكره وثنائه وصيانة ودائعه وإقامة شرائعه في أوقاتها المعلومات وهيئاتها المعهودات على وفق سنة شارعها المرضية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 wa fi ma yataallaqu bilmasajidi yaqulu rabbuna taala innama yaamuru masajid allah man amana billahi walyawmi alaxiri wa aqaama alsalata wa aata alzakata walam yaxsa illa allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin wa yaqulu aydan wa anna almasajida lillahi fala tadcu maca allahi ahada wa warada fi lxadis alqudsiy anhu taala wa huwa alxamidu alwali inna buyuti fi l ardi almasajid wa inna zuwaari fiha ummaaruha fa tuuba liman tatahara fi baytihi wa zaarani fi bayti wa xaqun ala almansuuri an yukrima zaa'ira rawahu abu nuaymin an abi saidin alxudri wa fi saxiixayn man bana lillahi masjidan bana allahu lahu ka hayatihi fi ljanna wa fi riwaya bana allahu lahu baytan fi ljanna wafaqana allahu wa iyakum li taatih wa atama taqsirana bi afwihi wa hilmih wa bi qabulin xasanin taqabala minna wa minkum bi fadlihi wa juudihi wa karamih yaxfiru allahu li wa lakum wa li jamii almuslimin amin صلى الله عليه وآله وسلم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 asalaamualeykum wa rahmatulah. astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salaam wa minka salaam rabbana Absolutely. amiin yàlla na ko yàgg a def amiin